dañoo ñëw fii ci hôpital Magatte loo avant may euh, continuer di di wax sax dama bëgg donc euh, vraiment euh, ñaanal les familles parce que léegi laa dugg salle bi fekk naa fi ñetti jigéen yoo xamante ne wax dëgg yàlla seen métit tar na métit boobu nag Sénégal yëpp mu ngi koy partage ak ñoom président de la République Macky Sall mu ngi koy partagé ak ñoom gouvernement du Sénégal mu ngi koy partagé ak ñoom peuple Sénégal yëpp ñu ngi koy partagé mais li ñu seetlu aussi lu mu métti métti nangu nañ ko ak dignité ak gëm yàlla loolu itam vraiment muy loo xamante ne lu ñu seetlu la euh, bon nag li ma leen mën a wax rek mooy que ne bi ñu ko yëgee tey si suba lañu ñu bàyyi lépp lu ñu def jóge Dakar ñëw fi man nag euh, sama collègue euh, monsieur le ministre nga xamante ne moom mooy yor solidarité nationale Samba Diobène Ka muy doomu d'ailleurs région bi ñëw pour bokk ak métit bi ak famille yi ne leen nag gouvernement bi rôle mooy mu ànd ak ñoom gunge leen jàppale leen ba métit bi ñoom rek ñu bañ ñu bañ ko bokk mais ñu bokk ko askan bi waaw yaakaar naa ne loolu moom dafa nekk loo xamante ne d'ailleurs euh, lu évident la euh, incident bu mel nii bu amee lu ñu war a jëkk a def mooy déjà ñu xool lan moo ko waral moo tax d'ailleurs euh, mënuma donc avancer trop techniquement ce dossier bi damay bàyyi enquête bi mu déterminer lan moo waral incendie bi bu ko defee nag ñun ñu mën a xam effectivement donc naka lañ si war a mën a taxaw